rendez-vous demee incha allah alors bu ñu paree foofu dañuy dem si leneen yi nga xam ne nii la Ousse. di ci Kheucha dafa xaw a dafa xaw a blessé xam nga kii vidéo bi dafa kii mais ba on va parler de ça nañu wax si Zarko ba pare Zarko moo am fitna Ousse. Hmm. Zarko mi dem ba kër ñoom Balla Gaye yëngal fa saanal vidéo bi te Ousse rek saanal no comment saanal rek yow. tey nag Zarko boobu pour ñu dem. ko ñu Balla Gaye man Zarko moom fit si àddina bi xoolal maa ngi teel xaw ma kenn xamul pël la de mais kii waalo waalo la kenn xamul pël la kenn xamul waalo waalo la bu ma sonal yóbbu ma biir gàlle nag tegal ma ceebu jën bu neex a neex instant noonu di xaar Zarko Zarko ñëw na mu di instant otom bi rek la xaw am lu lu ko laal mu ngi noonu di départ xam nga départ noonu ñu ngi noonu après foofu la suñu oto bi sauvé Samba Suuna ngi noonu tambour major xale yi di ruubee Zarko yaa ngi dégg mu eh, eh, ko. sama am waa maa ngi wiiri Vaya, vaya. Bébé Diène daa daw. Bilaay walaay. barki Sëriñ Tuuba man moo daal kontaan. barki Alaaji Fallu Balla munu la Balla munu la. Balla tapel la Balla jëlal ñëw ba géej waaye di la ruube. alors moom noonu yéen a gisandoo Zarko nag Ousse Zarko da mun tooñ am na fit waaye daa mën a tooñ. léegi ku ko bàyyi muy dindi def dafa neex. <laughs> Euh, mi faa faramaay waaye 39 ans. lii neex na waaye la am mais d'ici 2025 il aura 40 ans. voilà macha allah loolu tax dama ko arrondir. macha allah lii dafa neex li Zarko def dafa maa neex. oui ah, dafa maa neex lii day neexal. lii da nga koy gis maanaam ñu ngi dundal làmb est-ce que est-ce que dégg nga ci benn wax gu ñagas. non neexal. maanaam xam nga maanaam bu dee Zarko fi mu war a fekk Balla Gaye pour gis ko xam na ko du ci tali bi lay koy wëre maanaam mais boo gisee. maanaam fugg bi dugg biir géej waaye Zarko Zarko maanaam da lay wóor booy yi Balla Gaye lañ bëgg. Mhm. mais xam ni dafa rafet te affaire de làmb lay def. Mhm. xam nga ni Zarko du mës a dindi loolu. du ko def mais. mais de show. Mhm. pour xam ni tàngal lamb yëngu mu xam ni soxla naa Balla. Mhm. maanaam boo xool am na benn vidéo bi Balla di tooñe naan ah na bëree jeeg ay ñoom fils de Balla. mais moo Balla waaw waaw waaw xaw ma ko Balla xaw ma du ko. non non mais nii maanaam mbër ñi maanaam Zarko ku nekk war nga mën a bëreeg moom xam nga lu tax. Mhm. moom bi mu demee ñi bi mu tollee xale yi rek la taxaw di may sens. Zarko. bu ko neexoon boo yëpp du bëreeg ñoom ñi muy bëreel nii. du bëreeg ñoom man da leen di li charme la dafa neex. Mhm. li charme làmb la boo xool tooñ na mbalag na bége naa ak booy kaf na ak ñoom ba booy yaa ko noonu ñun Balla Gaye rek la ñuy topp mu laa leen da xoola maanaam di leen xa maanaam bëgg-bëgg la. Mhm. ko wane ni man damaa bëgg bëreeg Balla Gaye fu ne nii waaye coow. maanaam indiwul loolu violence indiwul loolu lii lépp ci mbégte la fair-play la lañ koy def bëre ko mu jeex bu waree am day am te komba la. combat la. bu mag combat la de xaw ma nag gaa ngi ci xalaat xaw ma xalaatuñ ci mais Balla Gaye koo komba la. Ah, xam nga lu tax. Balla bu bëreeg ñoom sax da am lu muy confirmé waat ci gone yi. te pourtant Balla ak ñoom Zarko même génération. génération la lépp Balla moo teel a dooj rek. balaa teel a faxas làmb rek. waaw daa teel a faxas làmb rek macha <laughs> allah doomu Double Less yi daa teel a faxas làmb rek. Mhm. doomu Double Less teel a faxas làmb def lépp li ma waxee diw bala Sega Balla Balla Balla xamatoo foo ko classé ci làmb. Mhm. parce que daa def lépp toog. daa amatul maanaam Balla Gaye dootul def ci làmb lu safe. Mhm. lu mu def la ko defaat maanaam lu mu def la ko defaat maanaam Balla eh, jeex na tàkk mënatu fi def lu safe. Balla Dóor daf la am importance ci ndax nag mooy làmb loolu yàlla may na ko ko mais nii la ko suñu borom dogalee bu ma man li may ñaax supporter rek ñi buñ buñ buñ jël affaire bi réyal ko ndax mbir boo ko réyalee rek mun na rëy. ndax Zarko xam nga ni dofutoon doon seeti Balla kese moom kese di ànd. wala ñaari nit ci saay ci li làmb wax mais maanaam daaj la kaaf foo ree indi ambiance ci làmb mbégte tëkku fii tëkku fee nice la wax li gis nga suba la wax na ko fils de dem lu bëri jëg ñoom fils de Balla moom bu xëyee xoola Zarko mun na defaat beneen annonce. waaw yaa ngi keneen mun na defaat maanaam da ngay jékki-jékki benn xoola Zarko ak Balla sax taxaw na lamb la ay wax la. lamb lamb loolu la mooy li ma la wax sànq ci site. maanaam site ni mu waxee ne gis ngeen ni ma def Papa Sow nu ko raw laay def Modou Lo loolu lamb la day lamb fu mu ne ñun digganteem ak adversaire am dañuy wax bokkut ak leneen ak leneen tout cas en tout cas li mu def man rafet d'accord naa te loolu mbégte la quoi parce que xoolal ay supporter lu Balla la fekk ci arrêt ba toog kaf ak ñoom booyu bégg ko ñii jël photo ñii kaf ñi foree gis nga ñëpp di ko béggee te ñii Balla Gaye lañ bëgg ah, ah, moom nag mbégte la ah naa de gars yi nañu xool ci geste yu rafet yi moom gars yi nañ ciy xool di def buñ ci dafa mel ni sa ëmb seen en booyi nañ xool ci li te buñ ci ëppal xam nga booyi booyi booyi booyi dañuy gis ndeysaan nga dugg ñu maanaam taf benn mbër sax ñuy saaga ay naan la ay tuus yi di maanaam yooyu jaru ko mhm. lii maanaam seen mbër yéen bu amul jàmm mu leen am jàmm maanaam ñaari mbër yi ñooy mayante xaalis yéen yéen a ngeen seen mbër am alal am déet yéen a ngeen mbëru keneen am alal kon comme yéen a ngi koy joxante rek na rafet te lépp di taw féex man daal d'accord naa ci lii rafet déggul Balla bañ ko waxee affaire Modou Lo yooyu noonu yaay moo bañoon. empereur bu fa dugg ci Modou Lo. parce que dañuy neexal bu ñu xamul bëre ak ñoom dañuy neexal bu ñu bëre ak ñoom. dañ wax loolu. parce que kii li mu yor dañ koy fay chaque weer di ko fay ravitaillement di ko yor di ko. kii loolu may na. te loolu may na. droit des arènes am loolu may na. waaye bu see Modou Lo si la ko. waaye ki bëri ko waa yow. vraiment ay coow li coow li. ah. barke Rasoul ay coow li coow li dafa. Modou Lo si ñoom. dafa def na ay napp jubal na ci côté. waaw bataay de dàq ko naa liggéey. wala kay de bu ci dee Modou Lo mu gën. nee na la barki de mooy Ndiaye Modou Lo neloon ko bas. sawru ci Modou Lo. non Modou Lo neloon ko bas. lan Modou Lo Aliou si la jëm léegi. wala Aliou si la jëm waaye sax léegi. Aliou waay laaj yi mu waay. Modou Lo pour jàpp yu mu laa lisi. waaye jàkk na de. daa aay ci paa yi dèjà am léegi. waaw waaw waaw dafa aay ci troisième âge yi. da cee aay. Modou Lo daa aay ci troisième âge. ak aay ci super muur. loolu laa ñëwaat mais kii amul jàpp ni ku jàpp ni Modou Lo moom Modou Lo la woon. Ah. dugub Pikine daan Boy Diagne. Ah. dugub Pikine ah. daan Ama Baldé. waaw. balaa ngeen a génn kër yi. waaw ah loolu la ñu waxoon ngeen ko. ndax la ragaluñu loolu téléphone yi fay. loolu la ñu waxoon ngeen ko. ragaluñu loolu. ku mu naqari tey sa koor. maanaam maa ko wax na la rajo bos moom ñu ngi fi pour ñëpp. déedéet ku bëgg na ñëpp. am na lu ngeen bëgg am na lu ngeen bañ. Bassirou Ba si Ba boobu la ñu ñeme ngaa teg sa couronne yow waxul sa diggante ak yàlla mi nit yi est-ce que ñeme ngaa teg sa couronne yow ñeme nga. ak sa leen ñeme ngaa lay Simba waaye ñeme ngaa teg sa couronne ak sa leen sa leen. sañ ñaar dugg jàkk di sa parcelle jiitu fa ñu yow. day lay def ak Fara. Modou nag wax dëgg yàlla Modou nag eh, gis nga yow Fara wax yaa ngi bëgg am borom nag. wax jaa ngi bëgg am borom de. ah mu de nag lay fanaan rek. nag bu mag la de. nag bu mag lay fanaan. dina la de. tukuli. jàkk ja ca parce que ngeen faa dugg nodd yéen. ay damaa lay nii. sañ ngeen faa dugg di te julli. bu ñu tegee seen kuréel seen sañ ngeen teg seen bos. waaw kay dama bëgg rek. moom mooy bëgg rek. di nga fekk si ñoom di saafara nekk rek. en tout cas dégg ngeen moom noonu ay zëng noonu ak buur gi wala ki nga xam ne ni mooy Balla Gaye léegi ñoom ne ku neex na teg couronne am. Mm-hmm. mais comme boobu pourtant mën nañu def l'accidence Balla Gaye Modou Lo. ah en tout dina yóbbuwaat lamb fu bëri bëri. en tout cas xam nga lu tax Balla Gaye su boobaa ay affaire coow affaire eh, est-ce que xam nga lu tax ah, lamb jooju war a amaat. Mm, na moo tax kenn tax mu bëgg lamb ji amaat. kan parce que nag yaayu Balla Gaye ñaan loolu te suñu yaay lum ñaan duñ ko war a maye. Ah, waaw nga dëgg ah nga dëgg wax nga dëgg jéggalu xam nga Balla Gaye du moom moo laaj Modou Lo. parce que waa Balla Gaye ñoom nee nañ moom tout sauf Eumeu Sène ñoom moom nee na Eumeu Sène doy sëkk parce que ñoom. am na kuy ànd ak Balla Gaye. waaw kii la Lamine Golo Lamine Golo. ah nee moom. Balla Gaye na jël ñëpp bu mu des. mais kaay ma xam ne Balla Gaye gi ma gis nii. Ah, gis nga tamit. ah sama sama waa ji moom kenn du moom kooku kooku buy bëree ñeent gaynde tiim ko man nangu naan da leen di affronter man man man bañu ma loolu te xam nga lu ma neex ci moom li tax ma gën ko mën a supporter. Mm. moom xamul bëre daan ak daan moom day ñëw def li wax. combat am yëpp moo dàq si àdduna moom day ñëw def li war mu jeex takk takk takk takk takk takk en tout cas ñu faire honneur sax waajur Balla Gaye waaw moom moo ñaan combat bi Modou war na ko ko may. ko ko may. dafa ah, ko war a may ah. <laughs> Modou dina ko may d'accord nga loolu ah, ah, ko war a may bu ko defee. d'accord naa ñoom ñaar ku daan mu nekk laamu ji jeex na ñu xam ne ñoom ñett ku mën. laamu ñoom ñoom mënuñu fi nekk bëre ba jeex na te ñu xam ñoom ñett ku moo mën. mais tamit mbaa xam nga ni fu ne nii tamit. Euh, diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye tamit dara du ko dàq de. mais waa Balla Gaye nee duñ jël. non non non ñoom ñoo ko wax rek mais mais Lion de Guédiawaye bii. Mhm. maanaam c'est que Balla bu doon tiit. Balla moom moom. xam nga xam nga maanaam bu doon mbër muy sóor. Mhm. wala muy tiit wala mu am lu muy yokk ko kii ay bu ma daanee trois fois Balla Balla newul ci yooyu. Mhm. c'est looloo ci métti. xam nga moo gën neex si ñoom. waaw Balla Gaye rêve yëpp. mooy daan Eumeu Sène. pour fayu. waaw te dina Eumeu ah. Sène. réewam yëpp mooy daan mooy daan Modou Lo. Modou yëpp. mooy daan Balla Gaye maanaam dafa. <laughs> te il faut que tamit moo tax nag fa faaw yooyu am poids. foo man foog man tamit yooyu ñu def ay ndax ndax xam nga lu tax ku ci nekk confirmé nga. Mhm. Modou daan na Eumeu Sène ñaari confirmé na même bu ko Eumeu daane 2-1 kon moo gagné ba lii. Balla ëmm daan na ko deux fois. Hmm. même bu ko daanee moo gagné ba léegi deux un la mais loolu faaw ñu mayante ko. kon koy xamul Balla yi daal ko deux zéro même bu Modou Lo ñëwee day doon deux un kon tool mais loolu loolu faaw mu am. faaw mu am non seen bëriwaat. wala li nga waxoon démb neex na ñu boole leen kalaaf a a teel seen biir mais. Ah, na ne de loolu faaw mu am moom daan yow il faut mu am. mën na ne de. ak Ousse li fu mu toll nii. mais dañ war a boole tamit. Euh, saf na ba noppi. warul sax pali. bu ko sax giri bordu mu may ñu ko. mais est-ce que xam nga ni ko war a jox fu mu toll nii sax. est que xam nga ni giri. giri koo ko war a jox. nii nii nii nii. giri na giri na nga tudd Zarko. pourtant giri nag mooy combat bi de. giri Zarko combat de. bizarrement comme moo jën kay rek moo kii moo bébé jën bi yàqu na su ma juumu. Ah, Zarko bébé jën yàqu na dañ ko jox giri. maanaam giri bordu mënut a ñàkk ci arène nationale. mooy ah. giri dafa war di bëri. mooy ambianceur bi. giri moo war di bëri ñu boppam. <laughs> giri dafa war di bu neex nag. Eh, Zarko daw giri dina dóor Zarko di dóor. combat wu xeex la combat wu loolu dafa war a am loolu day neex de billaahi day neex combat bu neex ngay gis loolu. il faut mu deewaat si làmb ji. wallaahi. kon naa waxoon temps yi mooy bës. il faut mu delluwaat loolu faaw nga faaw nga am ci dara. <laughs> merci beaucoup Ouz. merci. rendez-vous big respect mais xaaral xaaral xaaral xaaral. Hmm. ma yónni binet benn kii sama sama sama coach day anniversaire tey.